gëna a euh, loi d'orientation relative au PME loi bi nga xamne mom lañu jagaleeg entreprise su ngeen xolé réew yu bëri ci aduna bi dañuy am benn loi bo xam moy définir cadre bi nga xam mom lay entreprise di fa la évoluer té loi yooyu soo seetloo comme loi bi ñu def au Sénégal dafa jagalé ay incitation yu bëri yo xam ay avantages yu bëri PME yi xam ngeen luy luy PME du grande entreprise nous moo waral traité les dossiers de paiement de façon spécifique ci loi pour les nu ñu nous di jàppale formaliser wu suñu avons su ngeen seetloo entreprise yu dans le secteur informel le secteur est établi pour aller vers la formalisation la loi bi da pour aller vers la formalisation mais loi bi avantage yi gën c'est am solo mooy PME yi accompagner leen pour avoir un financement financer seen investissement yi mais les PME aussi accompagner leen pour ñu mën accéder au marché accès au au marché surtout marché extérieur ay ay contraintes yu métti lañu la PME di jànkantool donc loi bi bëri na ay avantages yoo xam ne moom aussi pour pour les PME surtout les PME en difficulté jamono yi ñuy romb mooy jamono ju jafe-jafe ci PME yi euh, parce que Covid bi li mu indi PME yu bëri dañuy connaître lu ñaan ay lancement d'activité économique seen comme comme dafa wàcc tuuti te loi bi aussi donc wane na ay dispositions yoo xam ne dañuy jàppale PME yi nekk en difficulté li gën a am solo ci loi bi mooy innovation yi mu indi te loolu dama bëgg ñu insister ci bu baax a baax loi bi dafa teg benn cadre de concertation boo xam ne ñu ngi tuddee conseil national de la PME conseil national de la PME secteur privé ñu société civile mi chambre consulaire yëpp les services de l'État Nous nga fait pour mettre en œuvre loi bi ADP, le ngi ci e bureau de mise à niveau bourse nationale de sous-traitance Sénégal fonds 6, fonds JIP, madame structure état yépp ñu ngi ci biir ñi nga xam ne ñoom la wax ñu mettre en œuvre cette loi la loi bi nag mooy cadre de référence structure état yépp ci la ci la ñuy tënku tënku pour def seen liggéey donc cadre bi may wax noonu naan ko conseil national PME bi liggéey mooy suivi de la mise en œuvre de la loi mais aussi bépp politique boo xam ne ñu koy def ci Sénégal pour jàppale PME bi cadre boobu bi nga xam le chef du gouvernement mokoy présider cadre bobu nga xam mom moom waxtané tay moy def le suivi de l'exécution aussi des politiques moy def moy aussi def évaluation manam at bu ne décret bi nga xam mom moom préparer mi ngi wax né war nañ def ben revue annuelle bo xam moy permettre ñu def l'évaluation de toutes les politiques yi nga xam mom lañu jagalel entreprise yi cadre bi de permettre ñu harmoniser suñu politique de permettre aussi de mutualiser les interventions pour pour créer beaucoup plus d'efficacité donc et beaucoup plus d'impact en faveur des PME C'est ce que solo solo ndaje bi euh, beneen innovation bi nga xam ne mët na mët loi créer benn fonds fonds national PME fonds bi c'est un fonds à frais partagés liñ ci que fonds moo war jël en charge bépp soutien bi nga xamné état da ko wara a entreprise ci walu loi bi nee naa entreprise yi PME yi sen mbëbët sen sen sen jafé jafé bari na su ma formation su ma assistance technique su ma accompagnement au financement yooyu ay ay ay moyens lay laaj même investissement yi nga dañ koy soxla euh, fonds bi da ci wara liggéey pour jappalé donc entreprise yi fonds bi aussi fonds national PME bi dañ ko waxtaanee léegi am na nuñ koy nuñ ko préparé nuñ ko tënkee ci wàllu organisation ak ci wàllu fonctionnement pour que li nga xam ne moom la ci chef de l'État donc euh, bëgg ñu ñu mën a yëpp ñu mën ko ñu mën ko yeggee. Euh, loi bi aussi su ngeen seetloo dafa redéfinir PME yi au Sénégal dañuy distinguer kan mooy entrepreneur su ngeen seetloo seetloo Sénégal ñi ci ëpp ay góorgóorlu lañu ay entrepreneur individuel lañu. fait statistique en 2016 avec avec l'ANSD Nous avons 81,8% du tissu économique c'est les entrepreneurs individuels donc nous, mën la majorité des PME au Sénégal donc nous, il faut ñu faut loi bi statut le statut de l'entrepreneur et puis loi bi aussi insisté insister pour nous formaliser avec des conditions allégées amna entrepreneur amna très petite entreprise petites petite entreprise nous moyenne entreprise mais pour gagner le PME au Sénégal il faut que ce chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 2 milliards donc loi aussi moo permettre ñu catégoriser PME au Sénégal reconnaître juridiquement le statut de la PME et puis formaliser aussi le statut de l'entrepreneur jagale ay yu fonds national PME

qui nga xam numéro d'immatriculation ki nga surtout état financier ce le secteur informel Et évoluer dans le secteur informel nous sommes mais ne Nous contexte Covid Le gouvernement a Covid bi démarré ñu le secteur informel mais liggéey boobu dafa a parce que pour identifier leen lu jafe la parce que tey soo waxee secteur informel ñëpp dañu ñëw ne secteur informel lañu mais liggéey boobu jumb jumb nañ ko fu ñu toll nii démarré nañ ko ak euh, appui béy BI BIT le bureau international du travail jàppale ba ñu def nañ benn étude étude bi pare na léegi c'est rapport final suñu paree étude boobu ça va nous permettre vraiment ñu am benn registre boo xam ne saa nous permet d'identifier les familles de secteur informel pour que état ëllëg su amee mën leen jàppale donc wax jooju lu waral moo ko dama ne secteur informel soo ci yàggee baaxul parce que doo am partenaire bu sérieux soo chercher un partenaire à l'extérieur dans les marchés extérieurs les partenaires stratégiques en général amoo état financier amoo kenn xamula tu es dans dans l'engrenage de l'économie informelle en général tu as des difficultés pour avoir des partenaires sérieux ci vois, l'investissement aussi ñoom ils ont beaucoup de difficultés parce que les banquiers aussi si bëggee ñu lebal la il faut nga présenter au moins les trois états financiers des trois derniers mois mais sur mon état financier en général du ma ne doo financement mais le financement surtout financement bu cher ngay am ba pare yaa koy des montants c'est des montants très faibles voilà donc nous formalisons moo parce que si on formalise, di nga nga accéder au dispositif d'accompagnement que l'État a mis en place au niveau de l'ADPME, au niveau de FONGIP, au niveau de, du bureau de mise à niveau, avec une structure. Nous accompagner et puis accéder au financement. Si euh, le financement, euh, les PMI, nous occupé la plus faible part. Nous occupé du financement, plus de 10% du total de financement accordé à, donc à l'économie. Donc, euh, donc na déjà jafe-jafe boo xam aussi ñu ngi ci liggéey donc euh, secteur informel dama ma rek ben benn la mais da nga war a évoluer formaliser wu comme ni ko état bëggee comme ça yow aussi nga mën accéder aux avantages ak une yi nga xam ne moom la état jagleel PME